voilà mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm une fois de plus ñëwaat nañu encore ci seen découvert euh, ci Leral TV tey ji ñu ngi ci euh, Malika département bu Kër Massar ñu ñëw ba fii nga xamante ne foofu la ñuy naan xiis ga xiis ga su ngeen ko déggee mu ngi ci wet euh, décharge bu mbëbës fii nag euh, li taxoon ñu ñëw fii tey mooy dañu ñëw fekk ay maraîchers yi nga xamante ne maanaam ñi bay ci tool yi ñi nga xamante ne dañoo am occupation maanaam ay suuf yoo xamante ne dañ leen ko jegleel ngir ñu mën a daan seen doole waaye nag li coow li mooy ko suuf soosule waa autorités yi ak ñenn ci ñi nga xamante ne tamit dañuy sax saaxee suuf si ñoom ñoo fekk ci leen ci bërëb yi nga xamante ne foofu la ñuy daanee seen doole ñu bëgg a nangu suuf soosule loolu nag mu nekk loo xamante ne métti na ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey donc ci bërëb biire ñoom ñi de sax boo xaymaye donc ci seen tolluwaay mun nañ toll sax ay téeméer ak ay téeméeri doomu aadama yi nga xamante ne ñu ngi ci wet donc décharge bu mbëbës waaye nag ci suuf Malika boobu tey jii ay bandits fonciers lañ leen tuddee ñoom ñoo bëgg a nangu suuf soosule mu nekk mbir bi nga xamante ne ñoom ñaawlu nañ ko trop trop te di sakku tamit aussi ngir ñu leeralal leen donc mbir mi ni mel ana lan la ñu mën a taataan ci kaddu ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci tool yi fii ci xiis ga ci Malika département de Kër Massar ñu ñu dem teewlu seeni kàddu ci reportage bi. mbirum coowal suuf ci département bu bees bii di Kër Massar nekk. li nga xamante ne daanaka mu ngi jéggi dayoo bés bu yàlla sàkk ñu ngi fii ci Malika jege lool décharge bu Mbëbës mu nekk bërëb bi nga xamante ne ñu ngi koy woowee xiis ga fii nag ñi nga xamante ne ñoo fi daan seen doole te it ñu am fii ay terrain daanaka ci xol bu naqar lañ fi toogee ana lan moo waral li ni mel te it ñi nga xamante ne ñoo fi nekk kan lañuy joxoñ baram tuuma ci mbirum suuf soosule te papier terrain yi fi nekk yëpp le maire Momar Talla Gadiaga moo ko signé mënul signé ay nit ay terrain ba pare mu retourné encore mën nañ convoqué ko ñu ñëw pour mu toog xam nga wax ak ñun mënul nekk en même temps tamit vingt yi ñu ko jox dafa laal alali jàmbur ay centaines de personnes ñoo fi nekk jënd ko depuis 2014 2011 2012 ñuy toog di xaar may interpellé képp ku am xiis ga matériel de terrain na nga ñëw taxaw sa tere sinon maire Talla Gadiaga dina ko sànq interpellé bon le président Macky Sall ak Amadou Ba son premier ministre ak Modou Gueye le xam ne 20 hectares yi ngeen jox taal Gadiaga ci moom li nu gën a jaaxal mooy danu ñëw joxe bande littorale bi yëpp joxe ba joxe waale tool yi man pour man ay toolu jàmbur boo koy joxe tey war nga ñëw nemmee ko ñu ne ci tool yi wax ñoom ne lii état lii la moom lii la borom tool moom dafa am ñaar ñaar étape dafa am bande verte filao bi ak li nga xam ne ay toolu jàmbur la xam ñoom ñoo fi njëkkoon depuis 1933. mais suñu problème bi ñu gën a jaaxal mooy euh, PUD bi mu génnee li nga xam moo ëpp li gën a borom tool yi mooy vingt hectares yi jox commune Malika bi monsieur le maire ne moom vingt hectares la ko jox vingt hectares yooyu dafa dugg ci borom tool yi maanaam dafa dugg ci ak njabootam te njabootam googu mu dugg moom moo leen defaloon ay kayit man dèjà man mu wax ñun ñun am na benn terrain yoo xam ni conseil municipal moo ko voté sous préfet approuvé ko tey bu ñu ñëwaatee ñëwaat ne vingt hectares yi dañ ko bëgg jox borom euh, maire Malika tey li mu waroon mooy génne borom tool yi xam ñoo ko moom te quatre-vingt-dix pour cent yëpp jaay nañ seen i terrain ngan leen yéen ah man kat naa fa yem bàyyi leen seen tool li des man que nee na dañ ko ko jox pour mu rembourser ay dette pour ma yaakaar naa vingt yi jox commune ko jox pour fay ay bor ak seen tool des ñu joxe ko parce nga dagg ko ñu jaay ko def euh, terrassement nga jaay suuf si. kii man la famille bi yëpp man la gën a touché damay damay def prière ma toog ba si ak may jooy ndax doxalinu taal bu doon kenn na ko def kon maa ngi ci kaso bi. tool yi fii jafe-jafe yi nekk fii parce que gis nañu garab yi commencé nañ de. waaw loolu tax mu bëgg gis nga route bi mu bëgg a def nii yóbbu ko ci biir pour jaay ko Sine waaye duñ ko def. man maa jëkk a maa jëkk a weddi loolu piqué yuñ fi def lu ci ëpp maa ko dindi sama baat ci kaw waaw. moom laay wax moom laa ko song mu ni alamik moo moo sama benn grand policier bi sama turandoo sama turandoo baayu kii la waaw muy visité sa titre foncier bi lay doxee di def lu ko neex ah te duñ ko def. en 2012 la fi 37 hectares yi dugg. bi fi 37 hectares yi duggee ñu ni borom tool yi ñoom ñoo ko moom yaa ngi dégg ñu ni léegi nañ jox borom tool yi 37 hectares yi bi ñu waxee nañ jox borom tool yi 37 hectares yi booba naan borom tool bi nga dem natt sa tool lu mu doon boo amee 100 parcel loolu am juróom fukk ak juróom yaa ko moom yow borom tool ñeent fukk ak juróom meeree ko moom. waa ñuy dundi loolu ba pare ñu ni gëm loo ne bis bu Macky Sall dafa doon deseeg ku si néew ñu ni gëm ne bis bu Macky Sall gagné heure bu wootee ñëwee rek. 2010 ba léegi heure bu watee ñëwee ñu ne ah, wax leen dina watal leen Macky Sall bu mu watee Macky Sall bu soob yàlla sunu alal dina nu ko jox ñu wateel Macky Sall ba nëgë ni mais dinu gëm loo loolu dinu gëm loo loolu mais benn famille nag mënoo jox ñi xañ ñi 40 mètres comme filaawo yi dafa gudd comme dafa am xaalis ci biir ñu noon may nañ borom tool yi 40 ci biir filaawo yi ndag ko pour ñu mën fee dëkk di fi bay ci loolu lañ dégg këyit baa ma yor ñu ministre Khoudia Mbaye defar ko taal nga signé ko léegi bi mu ko signé léegi ñu yàlla def na Macky Sall ñëw toog bi Macky Sall ñëwee dindiwu lépp loo xam ne Abdoulaye Wade def na ko dindiwu ko da koo continuer léegi ñuy waxtaan ñun famille membre nga jógee ñoo ci jëkkaam man ma dem si kalsonu tool muy 6 hectares a genn wàll ñuy xeex ak man di xeex ak man na waa Malika yëpp man kese lañ doon xeexal ñuy xeex ak man di xeex ak man man leen carrément fii ba kenn moomu ko alali gouvernement la te ku ko soxla dañ la ko war a jox kon duñ ko jox baay kenn ñun dañ cee bokk may xeex ak ñoom bañ ne léegi nan waxtaan jubóo bi ñu waxtaanee jubóo ñu ne 103 parcelles luñ 103 parcelles lañ leen ciy laaj man ñaata lañ la jox man leen 100 parcelles ñun ma duñ la ko jox 103 parcelles lañ la ciy jox. génn yooyu def ko notification bi ñu ko defee notification ñun fayu maamul ga jege am nañ si 3 hectares yooyu notification 3 hectares yi fi des ñun nan ko bàyyi bu ëllëgee bu Macky Sall joxee li ci des après ñu jox leen la ca des mais la ca des mooy fi Birane Sy la tëdd foofu Birane Sy la tëdd ak Talla Gadio ñu fay ko wee daanaka lu weesu ñaar fukki hectare yooyu la ñu jàpp ni am na ñi nga xamante ne ñu ngi leen di woowee ay bandi foncier ñoom ñoo waral coow lii ndax ñu bëri ñu ngi waaja ñàkk seeni terrain yi ndax ñoo ñi nga xamante ne ay promoteur privé lañu ñoo ñëw teg yoxo suuf si nga xamante ne ay boromam ba saa si tembe ñu ngi dànkaafu autorité yi ngir ñu leeral lan moo waral autorité locale yi nga xamante ne ñoo nekk ci Malika di saax-saaxee suuf soosule problème bi bi mu ñu dalee dem nañ ci fi ñu war a dem yëpp déposé nañ ay ko dénonciation plainte au niveau du procureur ministre de l'intérieur sous-préfet préfecture foofu yëpp jaar nañ fa te ñu ngi waaj a saisir ministre du budget di des finances waaw ak secrétariat du gouvernement ñun li ñu ci jaaxal mooy ci affaire yi MLK yi ñoo ñu jaaxal MLK 19 MLK 31 MLK 20 MLK MLK yooyu lan la. turu kan lan mooy MLK. ñun loolu lañ bëgg laaj directeur Modou Gueye domaine MLK yooyu kan moo ko moom ci ci suufu jàmbur suñ ko def kan moo ko moom chaque jour cette question boobu ñu ngi koy posé monsieur le maire Talla Gadiaga ñëw na nee na vingt lañ ko jox. question bi ñu ko njëkk a posé ana kayit bi la état jox ni yow la jox vingt hectares yi ba léegi France sous préfet ñoom ñëpp ba dernière rencontre bi ñu woowee yaa matul une semaine et quelque des ko sang fa woon waa cadastre ñoom ñëpp a ngi toog eaux et forêt ba tey jii ci suba waxu ñu ñu tey kayit bi wanuñu ñu benn kayit buy wane ni état moo ko jox lii ci turu lan la ko joxe. parce que sonn ndax monsieur le maire maire Malika moo nekk ci suufu Malika bii def ci ay kayma ay lobby ànd ay lobbyam ñuy def lu leen neex Malika. suufu Malika gépp monsieur le jaay na ko ñun suñu tool yi monsieur le maire joxe na ko yëpp nee na état joxe na lépp amatuñ fi dara état nag ñu ngi lay wax ni ñun doomi Malika yi nga xam ne suñu maam yee ne woon ñu moom suuf si du ñu nangu tey du ñu nangu ëllëg képp kenn du fi dugg tey di ku fi dugg di jël fii suuf fu la dara ci suñuy bakken ngay jaar ñun ñëpp ñu ngi taxaw pare na nag di leen xaar Talla Gadiaga jox nañ ko 37 hectares lekk na ko ba mu jeex mu ñëw fii dañ koo jox 20 hectares. pour mu fay ay bor yan bor lay fay taala ga jóge fii Malika amewu fi benn bor ndax ñun taala xanaa ñun la waye fay bor ñun ñi nga xam ne lekk na suñu suuf si ku terrassé taala jël ci ñaw ñaari tere ñu trop ndax fii Malika depuis deux deux mille six lañ fi commencé am kayitu mairie booba décret bi génnagul booba titre foncier bi sax génnagul woon léegi bi PIB di bi PIB bi génnee lan bàyyi fii lu mat lu mat sept treize hectares. ñu ni maire ak urbanisme bi ñoo koy régulariser ñoo koy defar ba mu baax ndax kenn laalu ko zone bi ndax terrain yëpp mu ngi fi kenn laalu ko kenn laalu ko léegi nag bi ñu demee ba ba xam ni bàyyi nañ ko fi ci la ay gars yi dem ci urba domaine defar ba ay vingt sept terrain te bu bu doon la état jël day maasale terrain yëpp jël ko mais dañuy dañuy xool terrain yi nga xam ne tabaxuñ ko defuñu fa dara ñu coppati ko lu mat vingt sept terrain defar ko ay notification di ko jaay te ñoom waa domaine amuñu droit dugg dugg technique waa urbanite ñoo waroon ñëw ak maire de terrain yi retiré ko ba mu baax kenn ko ne li nga war am ga am ko mais nag dañoo xaar ba kenn waxatul Modou Gueye def ay signature Modou Gueye lañ fi gis gis ñu fi leen signature Modou Gueye lañ gis ci kayit yi jox ko benn booy bu naan Cheikh Niang dëkk fii Malika mu koy jaay mett lenn rek la mooy ñi bëgg ñëw jël suñu alal te duñ ko nangu suñu bakken yi la ñuy jaar soog di ko jël ndax ñun fii nii suñuy maamaati maam ñoo ko moomoon dëkk di fi bay bay tool yi ñu ngi nii ñuy bay bay bi dañ ko bëgg a dindi di di bëgg koo jël te duñ ko nangu fii ñi fi ñëw bu doon dañoo ñëw sax maasale jël sax ñu ne a ah, lii état la mais dañoo ñëw di coppet coppet loolu duñ ko nangu ndax loolu dàqu ñu ñu ko dàqu ñu ñu loolu bu doon loolu la dafa disponible kon ñun jaay nañ ko bu yàgg alalu jàmbur la moo tax te duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg fii ku ko fii luñ fi jël suñuy bakkeen la ñuy jaar jàll doo koo jël duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg suñu alal la ñoo ko moomal suñu bopp bu maam amul woon kon ñun duñu juddu maam moo moo ko moom to alalu maam la woon loolu am na kër yoo xam ne amuñu këyit amuñu benn këyit te nit ñi ñu fa dëkk ba léegi kon nag lii nag moom lii nag moom dañ ciy dañ ciy rajjal suñu bakken yii bu dul woon suñu bakken yii bu jaaree suñu bakken jàll jël ko bu ko mun Modou Gueye moom xaw ma Modou Gueye nan trial international te duñ ko bàyyi duñ ko bàyyeeg nii bu ko mënee nag nañu tëral jaar ci suñu kaw jël terrain yi ndax ñun jaral nañ ko ci loolee ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci Malika googule daal di lëkkaloo joxante loxo ak loxo ngir rekk mën a xeex ñu bàyyi leen suuf si nga xamante ne moom la ñuy caxat-caxatee te moonte de ñoo ko moomal seen bopp ba tax na ñu ngi dànkaafu gouvernement bu senegal ngir mu ñëw xool lan moo xew ci xiis ga ci wetu décharge bu mbëbës ndekete yoo ñoom dañuy nax bi affaire yu pare muy le directeur domaine muy la Abdoulaye Seydou Sow et cetera cadres mooy kii euh, domaine bi nga xam mu ngi fii tam ci Géejawaay Pikine ñoom ñoo def seeni mbir ñëw jël ay boo jox ay nit ñu teg ci nag suñu bët ñooñu nag bu ñu ñëwee dañ ñuy jaay doole eh yi nee nañ ñoom kayit yi ñu yor bàyyi la te 2023 2024 bii la ñu génneel seen i kayit ñëw teg depuis nag président déclaré li nga xamante ne moom mu euh, déclenché li nga moom mooy foore bi Géejawaay Malika Tivaouane Peulh gàddaay amul fenn foo xamante ni ñoom defuñu fa liggéey boo xam ne liggéey bu ñaaw la mooy nangu suuf population yi jox ko seen i boo seen i mbokk seen i xarit toog seen i bureau ñii six hectares ñii vingt hectares ñii quinze hectares ñii trois hectares ñii deux lii la ñuy nag duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg mooy li fi am dafay dakk d'accord ñu tey d'accord ëllëg population Mali ko nanguwul borom teene yi fi nekk nanguwul ñoo lànk ñoo bañ ba leen di jox vingt hectares leen ko fay ñun borom tool yi duñ ko def tey duñ ko def ëllëg fi dox dafa leer naañ xam nañ fi ñuy jëm xam nañ fi ñuy directeur domaine boo dem xam na kan mooy Fatou Gadiaga urbanisme boo dem xam na kan mooy faatu Gadiaga ministère boo dem xam na kan mooy Fatou Gadiaga dem naa seen bureau yi dañuy yéeg may wàcc 2012 ba léegi ñoom maa meere ñëpp dañuy yéeg may wàcc kon nag li ñu leen di ñaan mooy nan ko def ci njëkk tool saxaar gay li ma ci gën a wet sama mag ñu jox Mamadou Gadiaga joxuñu ñu may xeex ba am ta saxaar Gadiaga sama mag gumbala mu nga toog ca këram ñu kal six euh, euh, euh, trois hectares toolam yaa ngi deg bi ñu kale kalee ñu yóbbu ko domaine bi ñu ko yóbbu domaine kal ba ku dem domaine da nga ko fay fekk kal yi yëpp ñu yor Ibra Gadiaga Mamour Gadiaga ak Mor ak ñoom ñëpp seen kal yaa nga domaine mais boo ko allee di gouvernement boo ko kalee kay boobu ñooy borom ñooy jox ko mais jël suñu kal yooyu xam nga MLK 12 xam nga MLK 13 te ñoom ñëpp benn dëkk baa ku ci am xam nan la xam nga lan la ñuy ñaan Macky Sall ak ñu mu àndal bu doon taal a Gadiaga kese tool yi daal en tout cas li fi nekk ñun duñ ko bàyyi tey duñ ko bàyyi ëllëg sunu alal la te nag xam nga liñ doon wax bu njëkk dañ doon naa suuf si baadoola moo ko moom waaw ñuy féetaloo ñëpp xeeb nu ndax mbay mi ñuy bay ci bërëb bi liggéey bi nga xamante ne maraîchers yi ñu ngi koy def foofe te it di daan seen doole daanaka demeetul noonu ndax suuf si baaxatul te la ko waral lu bëri wax nañ ko ci. voilà parce que du problème mu kese parce que dépasse na problème maraîcher parce que ay toolu maraîcher la woon mais vu que ni ak mbëbës décharge mbëbës bi ni ñu ko ni ñu ko defee dafa dem ba yàq nab bi léegi fii kenn mënatu fa bay léegi nag sa tool nag bu demee mënutoo fa bay li nga ñi xalaat mooy nga morcelé ko joxe ko jël xaalis boobu investir pour liggéey ci parce que nab bu yàqu moom mënutoo fa bay moo tax yàq waxi maraîcher ma waxtu parce que déjà décharge mbëbës yàq na fi y avait un lac bu nekkoon fii lac bi dara am xorom dana na ba léegi amatul xorom déjà évacuation ndox yëpp lay ñëw décharge Mbeubeuss bi nga xam ne nekk ni fii région Dakar bi yëpp fi leen xëpp mbalit mi yàq ak koko yeeg lépp boo xool lépp dee na yàq na lépp léegi nag ah kilifa nekk fi ñun amuñu moyen moyens ñu ne nan nan nan ko morcelé jaay ko mais nag bu ñu koy dee morcelé da ngay wut sa promoteur promoteur wax ak yow ne ah, su ma ko morcelé di nga am temps de terrain amoo moyen pour marché ko loolu nga mën def léegi nag boo demee nga dem mairie yóbbu sa plan léegi ñu ah ba ñu ne nag dix terrain yu ne mairie da ci am ñaar mairie jël ñaar defal ay ay notification signé par le maire bu ko defee nag maire jël ñaara moom yóbbu moo xam nga jox yow nga jaay seen nit noonu la demee. xamu la te ku l'utiliser amoo droit def dara te yóbboo papier bi plan ba mu approuvé la te su paree ci saa si lay jël alalam yow nga jël li ci des nga dem fay promoteur bi xam moom moo la doon mancelel nga dem su doog say say famille di interpellé xalifa général des Layène ak Mañoon Laay Thiaw mi nga xam mooy mag ci dëkk bi nga xam ne sax njaboot ñu ngi souffrir fii diggante Mbataleen ak xiis ga ñu ngi ñu ngi fi souffrir souffrir gu métti métti te lépp kenn kenn teguñu ko kuru Talla Gadiaga la maire de Malika waaw c'est un bandit foncier bandit foncier international état mënu la jox mille deux cent quarante trois parcelles nga ni ko fuuf lekk ko ak sa lobby nga ñëwaat nga ne état moo joxaat vingt hectares yoo xamante ne ci ay moomeeli jàmbur nekk te fii nga doon romb say ñaari nag di sàmm sa toolu bàyyi ngi ne nga bëgg kaa lewal ah boole ko ci COSEMA nga bëgg kaa lewal waaw nga bëgg jël suufu jàmbur nga bëgg kaa joxe loolu mënul nekk. ci wër ndël décharge bu Mbëbës bi garab yiñ fa saxal rawatina cocotier yi ñu ngi dee ndànk-ndànk te loolee dara wararu ko lu dul liggéey bi nga xamante ne moom la ndey ji réew bu Malika sumb foofee. lu bon Malika euh, ci Dakar yëpp yëpp Malika lañ ko indi muy mbalit mi muy ndox yi ñuy versé ci dex yi dex yoo xam ne picc yi dafi doon ñëw moom dex yu rafet yoo xam nit ñi dañ fi ñëw di fi sangu kenn mënatu koo jariñoo boo xoolee fii Mbëbës gii. man sama papa am na fa tool boo xam ne bii lépp mbëba euh, lekk na ko ñaari tool sax lépp dara desu ca waaw ñu toxu si fii di fi bay si xool nga koko yi boo xoolee àll bi ni mu yàqoo xool nga àll bi dara dara baaxatu fi te bay mooy sunu moom moom moonu dundal lu ma am ci mbay laa ko am man ak sama njaboot samay dooma nga kër ga liggéeyunu dara maa ñoom ñoo doon ànd ci kii boo waroon ci Malika di nga gis ni ci baykat yi fi gënoon a mag ci laa ci laa bokk bu dee pomme de terre dama ko daan récolter ay dix ay quinze tonnes oñ soble noonu. ñu ñëw tey ci suñu tool yi maam yi nga xam ni mu ngi tudd mbatal yendu suñu maam yi fi lan daan yendu ba ngoon ñu dem liggéey daan fi mbay mbay mu rafet ñuy servir dëkk bi yëpp lajum léegi nag état andil ñu mbëbës mbëbës état la mbëbës lekk suñu lépp suñu tool yëpp kii fii kenn mënatu fee bay dara ndax lépp mbëbës lekk na ko. yàq na ndox yi mënatuñ fee naan tuberculose bi dafa bari Malika te lépp état wañ ko teg ndax mbëbës sañ ko teg Malika kër goo dugg ay tuberculose moo fa ne. te loolu yëpp problème à état léegi na bëgg état ñëw régler suñu problème ñun waa Malika. dund boo demee ne da ngay dégg da gis jën yooyu di ah, dee. dafa am produit bu ñu fi raxasee te ah, produit boobu baaxul dafa yàq fii yëpp. ñu ah, ma yàqaale reyaale garab yi yëpp yii yëpp gis nga yëpp da koo rey da di ji parce que dañ daan dañ daan béy fii ay ay ay soble lu ne la nga daan béy fii léegi mënatuñu am dara. problème ci Sénégal gépp wër këpp mairie yëpp am nañ foncier bii nag moo ci raw Talla Gadiaga moo gën a yées si maire yi léegi nag maire bi fu ne nii yéen ñuy politiciens yi ku fi toog problème mu foncier fi mu ne nii moom nga war a régler foncier bi ci état li li fi liñ fi yàq li fi maire yi yàq dafa bari ñu ngi leen di ñu ngi leen di woo yéen ñëpp ñi nga xam ne ay kandida ngeen ngeen fexe ba ngeen wax ci problème mu foncier bi nga xam ni moo nekk Malika mais Talla Gadiaga ànd ak ay nitam ñu joxe ko lekk ko ba mu jeex bàyyi ñu ñun ñi nga xam ne suñu maam yi ñoo fi nekkoon 1933 ba léegi ba bàyyi laay wootee aaji boo la ñu ñëw wuy si ko ñun ne fii tëdd fi ba léegi. mbir mu coowal suuf soose ca Malika ba saa si tembe jeexagul ndax autorité yu bëri tudd nañu leen ci banditisme foncier boobule ba tax na ndax jotul autorité yi nekk fii ci gouvernement bu senegal am taxaw seetlu te it indi. ay firnde yu leer teg ko ci taabal bi ndax ñépp xam ndeke suuf soose kan moo ko yeyoo te it lan lañ ci mën a def. wala mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñun ñoo ko déggandoor euh, ak maraîchers yi waaye sax ñi nga xamante ne ñoom dañoo am ay tool ci bërëb bi nga xamante ne euh, moom lañ leen doon waxal sànq te mu nekk ci wetu décharge Mbeubeuss mu nekk loo xamante ne euh, tey jii euh, doy na waar trop askan wi tamit soo ñu ngi joytu euh, di sàkku tamit aussi ci nguuru Sénégal mën a leeral suuf si nga xamante ne moo nekk fii ci Malika te mu nekk tetu décharge bu mbëbës te ay maraîchers ñoo ci nekk waaye ay borom kër ñoo xamante ne dañ ci am si ay tool waaye ay terrain loole nag ñu daal di joxoñ baaram tuuma euh, ndey ji réew bu bokk moomeel bu Malika ki nga xamante ne moom mooy Talla Gajaga moom la ñu joxoñ baaram tuuma waaye it promoteur foncier yi nga xamante ne bëgg nañu tamit jël suuf soosee di ko moome ñoom tey gi loolu la ñuy ŋañ parce que boo xoolee tamit aussi euh, ci wërndal décharge bu mbëbërs bi am na benn yoon bi nga xamante ne jàpp nañu ni Talla Gajaga maire bu Malika moom moo bëgg ko bëgg xalli te it tamit aussi boo xoolee am na ay garab yu bëri ci mel ni koko waaye tool yi fa nekk lëf lu ñu fay jiw mu nekk loo xamante ne daal vraiment bon euh, lu koy rey garab yi commencé nañu dee te askan wi tamit ñu ngi jooy ndax seen i tool yi nga xamante ne commencé nañ ko euh, seen i suuf si nga xamante ne commencé nañ ko saax saaxee mu nekk mbir boo xamante ne euh, daañ ko topp ba ñu xam fan la famille yooyu di mujjee ak autorités yi waaye tamit promoteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg a jël suuf soosu mu nekkoon découverte bi nga xamante ne moom lañ leen indi woon euh, tey jii ñu sant leen gërëm na beneen yoon ak beneen bërëb ak beneen découverte